conseil municipal Touba daje nañ tey fi ñu war di daje maanaam moo hôtel de ville bi ci ni ko yoon waxe maanaam euh, ci article 149 bu code des collectivités locale bi wax ni euh, conseillers yi dañoo war a wote budget maire bi euh, budget compte administratif bu maire bi at mu jot période bi ñu koy wotee mooy période yi ñu toll biñ ci biñ fi ñëwee comme ni ko sous-préfet waxee euh, conseil yi fi ne woon majorité bi voté nañ budget bi am na ay abstention loolu c'est normal mais li benn mais li may jàngati loolu mooy que boo gisee aussi conseil yi mobilisé wu euh, pour ñëw teew voté compte administratif bi am ay càmbar yoo xam ni ñi ngi ko ciy def te bu altine jàmm ci débat d'orientation budgétaire bi danañ ko fa gën a yaatal mooy que seen commune dafa bokk ci commune yi nga xam ni tànn naa tànn nañ leen pour dugal leen ci benn programme bu ñuy wax PACASEN maanaam programme d'appui aux commune et aux agglomérations du Sénégal programme boo xam ni euh, dafay jàppale communes yi ak gox yi ci ci yi nga xam ni dañu nekk ci biir Sénégal meneen nag duñ ñëw rek jàppale la ndaxte dañ la bëgg a jàppale dafa am yoon yoo xam ni dañu càmbaree sa liggéey ci sa biir commune nga jaar ca mën a wone kayit yu xam ni euh, wan na ni jaar nga fa mu ñuy wax élément probant bu boobaa dañ la ciy boole commune Touba nag yàlla da koo dimbali biñ ñëwee ba càmbar gis laaj kayit yi ñu war a laaj pour mën a bokk ñu mu joxe ko ñu ni ko yow boolee nañ ci programme boobu te nag pour bénéficier wu ci maanaam pour jot xaalis bi euh, lii ñu doon def tey encore une fois dafa bokk ci loo xam ni dañ ko war a gaaw a def maanaam voté compte administratif parce que aussi ñoom bëgg nañ ni bëgg nañ xam ni ñi nga xam ni ñoom la ñuy jox xaalis bi dinañ ko yóbbu ci population yi ak maire bi nga xam ni moo fi ne moom it na muy doxale xaalis ba dafay méngoog na nga xam ni noonu la ko conseiller Euh, tegtale mu doxe ko loolu moo waral suñu jataay bi moo tax ñoo ngi encore une fois di féliciter conseil yi fi teewoon ñëpp ak yi fi teewul ñëpp mais di féliciter toute l'équipe municipale bi